tey fête des mères la kenn ku si nekk da nga xool li si yaay gën a bëgg nga defal nga jox ko kii nag <laughs> xaalis la gën a bëgg moo tax aja waaw xool xool xool na muy xool di jeex la <laughs> tey ci benn weer lii nag dama bëgg ñëpp tey ku si nekk. si yaay gën a bëgg. Ah? nga defal ko loolu. kii nag moom xaalis la gën a bëgg. message nag pour ñëpp. ba kontaan naa lii